dikkati naa ab njombe bu ñu nar a jàppem siiw dey moo nar am ci réewum senegal turbine yéene kaay ne ma accident ba am Kaffrine tax na ci moment daal ñu fàtte sàcc yi nga xam ne ñoo nekk ci république bi yéene kaay bi média bi ne leen rapport cour des bi daal dina fiy jàpp ay kilifa ni leen nii ñuy sàcc alalu askan wi gars yi nag di fàtte fàtte lu mbir mi mel na ko concentré wu ci coowal accident bi metti na turbine yéene kaay ne ma moo tax askan yóbbu seen xol ak seen jëmm ñu yóbbu ko Kaffrine turbine ne ma gouvernement gi profito ci di def la ko saaf moom président Macky Sall moom ma ngi cay libéré ay détenus yoo xam ne nii politique dong moo taxoon mu jàpp leen bokk na ci Papa Alé Niang Les Échos yéene kaay ma Papa Alé Niang moo mee ni ki démb am na liberté provisoire waaye nag Papa Alé Niang dañ koy teree wax ci coow li muy ci public ak ci privé jël nañ passeport am te dañ koy teree tukki tribune yéene kaay ma waaye yoon ci boppam daf caa profitoo daal di sàllar bi ku naan sër duma wodd duma topp kenn laas yéene kaay ne ko déet déet rapport cour des comptes bi nag jébbal nañ ko procureur mu jëm nag ci gestion fonds bi bés bi la ma coow laa rapport cour des moom ministre de la justice daal dinay saisir procureur fukk ak ñaar ci doomu aadama yoo xam ne takkee nañ ci ñu daal di leen di wiise nag fas leen yéenee topp ni ko cour des comptes bëggee am na cëb ministre boo xam ne day lambaay ma ngay ñaw ci moom bes bi le jour na ña ngi koy toppee doy waar moom représentant bu FMI di rafet lu lool Sénégal dogal yi nga xam ne jël na ko suñ ko di yéene ma waaye sàll ngaari lam tooro Bourguette dafa mën a raxas waayam mën a setal waayam bari na ci rapport yoo xam ne jàll na fi ay recommandation yoo xam ni jot na ko moom président président waaye saa nekk daf leen di raxas ba nu set wecc ko Quotidien ne ma en tout cas FMI moom ma xaar suite ba nga xam ne ña ngi koy jox rapport Cour des comptes bi représentant résident bu FMI moo ko daal di xamle bés bi le jour na ña ngi leen di topp de ndax saa si tembe moom procureur jot na seen i dossier Walf Quotidien ne ma FMI it ma ngay wax ci subvention bi nga xam ne ñi ngi koy def ci wàlluk énergie Sud Quotidien ne ma nguur gi day daal na yokk paas bi fas yéene yokk guuta Momad Cissé vice président bu ASCOSEN ci yéene kaay bi naan dem ak dikk askan wi daan ci am jafe marchandise dem ak dikki daan ci am ay jafe-jafe le témoin yéene kaay ma sar dëgg-dëgg moo am de diggante président Macky Sall na ak syndicaliste yi ndax FMI moo weñ loxol gouvernement ba mu yokk njëgal essence ñoom syndicaliste yi naan daan nuñ ñu dégg te du yàgg ndax lii duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg vox populi ne ma beneen coow accident bi mujjee am te ñeen fukki bakkan daal di cay faatu source aane ma tegal foofu sa loxo mat na ñeen fukk ka ca mujjee faatu Mohamed Touré la tudd fanweeri at ak juróom ñaar la am nekkoon ab gardien ca collège Lamine Niass ex vox populi ne ma accident bu métti boobee tax na chauffeur si rabatteur importateur pneu saa si tembe nag ña nga fas yéene jàmmaarloo ak góor gouvernement defante ak moom nee ñu horaire yi nga xam ne guddi la góor maa gi ne moom lay daw du am tey du am ëllëg la nga xam ne it moom moo di ay tere yu bëri yu gouvernement gi daan ci xeex ak moom Moustapha Ndiaye bu syndicat transport bi naan koon bagage yi moomu ñu ko client yee ko moom bu ngeen leen teree bagage fu ñuy dugal seeni valise góor a woto yëpp mun ñoo defee visite technique fii ci Ndakaaru mënta te naan dañuy nangoo gum dogal yi de waaye diis lool ci kaw chauffeur si jaay jaaykatu pën occasion yi ne ma yéen seen gi du mujjee fenn ndax man ne coow li coow li bugaan ci 24 heures yéen kaay naan ana goro national moom Mansour fay ci boppam dañ koo war a dàq ndax nag géy ma nga naan la fi jëlee Abdoulaye Diouf Sarr ak ñeneen waru fee bàyyi Mansour te naan kon la nga xam ni moo fi indee ñoo ci transport yi du kenn kudul Mansour fay mi nga xam ne sab goro jël ngeen i mesure waaye da ngeen leen war a planifier xool ni ngeen koy lalee xool it ni ngeen di waxtaanee ak ña nga xam ne ñoo nekk ci secteur bi ngir jàmm am le mandat yéen kaay ne ma Mansour Faye la bëgg mu able nee na goro national li waru ko fee bàyyi yéen kaay bi samp laaj ndax demuk Mansour boobee ab solution la moom critique yéen kaay samp laaj de ndax moom Mansour fay war naa nekk béyub sarax bi ndax nag accident war naa am ay nit faatu ca gaa yi ne Mansour ci boppam dafa war a able critique yéen kaay ne ma mbaa duñ ko jal bi jalaa ñoo ñebe te Mansour ca dëgg-dëgg yoonam nekku ca bugaan gay dani ci 24 heures yéen kaay ne déet mooy ministre des transports bu jëloon dogal yi nga xam ni moom moo ci war lii am Mansour quotidien ne ma am na zone yoo xam ne fii ci réewum Sénégal ku faatu ci accident ñoo la faat jàppal croisement Mariama Niass fii ci Ndakaaru entrée bu bari ñi ak sa kër Martin Tataguine janna malaari jarume Sinthiou Malem ak Kousanaar ci le Boubacar ak yeneen ak yeneen ndax nag taliya ci boppam ñoo baaxul rax ci dolli woto ya fay daw daal di màgget lool l'enquête quotidien ne en tout cas jël nañuy mesure waaye nag daal di koy appliquer dina doon coow l'observateur ne foofooy danger bi de mesure yi nga xam ne jël nañ ko ndax nag boo moytul ci choc beneen la ñu jëm muy diggante gouvernement geeg transporteurs yi Mansour Faye ci biir yéene kaay bi naan confrontation du am ndax saa si tembe nangu rek boobu sàll ngaari lam tooro bur géde day ma nga ca waxub ñetteel bi mandat ci biir l'indépendant yéene kaay société civile bu Sénégal di woo Union européenne naan leen wax leen ci président Macky Sall mii mu gàntal ko teg ci suuf lu ko mooy moom président Macky Sall day taal réewum Sénégal tribune yéene kaay ne ma coow li coow li ma nga ca Ismaïla Madior Fall moom Ismaïla Madior Fall ci boppam nee na ñaari million carte buñ ko jaayee moom président Macky Sall mën a amaat beneen mandat tribune ay naxee mbaay la yow Ismaïla da nga jógee ci ministre daal di bàbbeeku ci politicien bu far direct news daal dama coowal troisième mandat bi deme nga yàq rek diggante Amadou Ba ak président Macky mbaa yàq ko ca Tamba protocole ba président respecté wu ko keroog ci conseil des ministres bu mujjee danoo janoo ca du protocole mbaadu lii nag day wane ne diggante Amadou ak président neexatul ba muy jóge Tamba moom président Macky Sall Amadou Ba dalalu ko bañ ko laajee ci ñetteel bi mandat moom Amadou Ba dafa ne loolu affaire président Macky Sall la Farba Ngom naan leen wax day leer président président Macky Sall mooy sunu candidat Amadou Ba naan leen man daal fu président Macky Sall nekk laa nekk ci coowal cour des comptes yi moom Amadou Ba defa ni woon du ca taxee du ca wax xam leen ni woon ay jëwriñ dañ ca taxee daal di leen di cité moom président Macky Sall naan kon étudier ko loolooy wax ca coow li coow tax na ba direct ci news sampub laaj ndax président Macky Sall digganteem ak Amadou Ba ma ngay neex ba tey l'indépendant yéen kaay ne ma en tout cas ci bi ña nga xam ñoo ca gaañu daañu am benn million ñebootu ñi faatule daal di am ñaari million booba l'exclusive yéen kaay ma ngi may xamal ne mon pays mon avenir moom ma ngay xoolal askan wi ne seen dund ñoŋee Ibrahima Sissoko njiit la gannaaw ba nu taxawalee ay centre ya ñuy jàngee téeméer ak ñaar fukk ak juróom ciy daara ñu dugal leen ci séemi ñetti téeméer ak juróom benn fukk ciy soxna ñu tàggat leen financé leen ci tànkuk na gën a taxawal mouvement ba la ñu ne dugal seen loxo ci tàggatu gi waaye tam insertion ndaw yi coow li coow li 24 heures yéeni kaay ne faaw ñu wutal ndaw yi solution de ndax ci àdduna wërngal këpp ñeenti seconde weesu yu ne benn xale faatu na ci àdduna wërngal këpp ci àdduna bi ci 2021 bi ak lu mën a am mbokk yi ñu ñaan jàmm xëyandoog jàmm